Doomi maa ndax daay حمدا يا ربي وبربي في البعد والغربة درار ما تجاد ربي وباب لم يكن مرتجا divorce yi bari na euh, te tamit euh, li nga xam ne moo waral divorce yi dinañ waxtaan si lool te tamit dinañ joxe solution comme ni mu lañ ko waxee tey caam lañ dala léegi moom si thème boobu noonu lañ nar waxtaan léegi dañ koy bàyyi mu waxtaan ak ñi nga xam ni dañuy suivre Teuf Connection TV euh, Sénégal. jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a ngi ci seen télé Teuf Connection TV Sénégal. tey jii nag euh, ñu ñëwoon ci seen émission whatsapp lu xew tey di waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci wàllu xale yu ndaw yi nga xam ni si yi seetlu nañ ci tas gi bari lool. Ah, comme ni ko sunu naataango bi nga xam ni mooy monsieur Baro waxee muy Moustapha di kenn ci liggéey bi di ko jàmbaar loolu itam euh, mu wax ci wàllu wi nga xam ni moo jëm ci lan moo waral euh, lu ni mel. donc ci point boobu dañ ci indi ay leeral yoo xam ni dafay jëm ci ay pàcc yoo xam ni mën nañ koo séddale ci ñaar ba ñett benn pàcc bi ci njëkk mooy li nga xam ni moom la wax sabab sabab yi jëm ci wàllu social muy sabab yi nga xam ni dafa lëkkaloo ak dundinu societé bi sabab yooyu nag eh, li nga xam ni moom lañ ci njëkk a jàngate muy li jëm ci sabab yi indi tàqalikoo yi ci xale yi bi ci njëkk euh, liñ ci jàngat ci seetlu mooy li ëpp ci li nga xam ne moo ko waral départ bi day nëpp wane nag wayjur yi nga xam ni ñoo war a téye xale yi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy cause bi nga xam ne fes nañ ci trop donc cause boobu mooy lan euh, sëy ci ñaari xale dañu nekk di dugg ci àdduna bu bees di génn ci àdduna bu ñu yàggoon lool waaye di dugg ci àdduna bu bees boo xam ni xamuñu ci dara euh, wolof nag foofu am na lu fi lépp li fi wolof lépp mooy dañuy ki jiitu ci nekk moo lay wax nan ngay toogaani loolu moo tax ñu wax ni ci suñu jàngat mooy parents yi am nañ ci seen taxawaay boo xam ni am na ci solo lool ngir loolu mën a bañ a am wante buñ nee cause ci côté social bi ak ci côté parental bi mooy dafa mel ni dafa am benn disconnect mooy dafa mel ni dafa am benn lu dokk ci diggante jokkoo ji waroon am ci parents yi ak way dencante yi ndax xale yi ci ëpp ñii sëy ci seeni biir dafa am benn diggante boo xam ni waajur yi dañ ci am wàll wante eh, foofu lu ñu seetlu ni ci li ëpp ci ndaw ñi wàllu wi ci way jur yi am dox wa ca war a am dëgg dafa xaw a des benn ci ndaw ñi la mooy ñenn ñi ci ëpp ci ñoom topp gi ñu waroon topp ak déglu gi ñu waroon déglu ci seeni way jur lu jiitu sax ñuy dugg ci sëy bi loolu dafay des su ko defee day daal di wàlliwaat ci biir euh, néegu sëy bi benn boobu ci la ñaareel bi itam mooy euh, gindi ak tette mooy euh, nit ki nga xam ne danga ko jiitu ci dara te war koo gindi war koo tette wàcc ko ci biir boppam muy tëllax tëllaxi ak xelum boppam ak xolu boppam loolu mën na indi itam li nga xam ni mën nay sabab xale yi di fantasiro maanaam di tàqalikoo ndaxte li ci ëpp consul consul nañu ay cas yu bari ñu seetlu ni problème bi bi muy am lu ci ëpp ci départ bi dañ koy nëbb parents yi entre deux couples la am na ci problème yoo xam ni dafay remonter tuuti ci wàllu euh, lu xam ni dañ naan euh, lii kat dafa am tabu am na ci yoo xam ni dafa tabu la su taboo day xaw a jafe ci ñenn ci nit ñu di ci discuter ak parents am na ci yoo xam ni nag nekkul sax tabu wante dafay nekk problème boo xam ni dafa xaw a sensible ba tax ñenn ci ñaari woy dencante yi kenn ci ñoom du am euh, pastefu wala am euh, maanaam euh, njàmbaaru mën a toog ak wayjur yi waxtaane ko ak ñoom loolu aussi bokk na ci li ñu seetlu nii dinay faral di indi ay tàqalikoo ci diggante woy dencante yi boobu aspect aspect bu ñu ràññee la beneen bi itam mu ngi jëm ci ñaari woy dencante yi muy li nga xam ni moom seetlu nañ ko ci biir li nga xam ni moom la ñu jàngat mooy muñ ak muñalante loolu valeur la dafa di loo xam ni ci biir li ñu jàngat ci biir li nga xam ni am nañ ko comme ay recherche ñaare li ëpp ci li nga xam ni seetlu nañ ko ci ñaari way dencante dundin wiñ daan dund ci lu jiitu ñuy nekk ci néegu sëy buñ duggee ba ci néegu sëy day am rupture ah te loolu oh, suñu borom xam ne moo ko bëggee noonu ndax suñu borom moo bindee noonu àdduna eh, dara du sax ci neex ba pare continuer ci di neex ndax ku ne xam naa ne ba ngay wut ak ba nga amee ba noppi diggante boobu dafa am différence donc kii wut tous les moyens sont bon pour que mu am mais su amee ba pare nan la war a nekkee pour que am boobu mun a nekk lu pare loolu mooy li nga xam ne mu mu nekk lu sax loo xam ne day wéy kon foofu lañuy gis ni itam rupture boobu su ci amul taxawaayu parent yi seen jàppale ak seenu gindi ak seenu tette ba tey eh, day daal di indi li nga xam den si mooy ak tàqaliko ndaxte li ëpp suñu seetloo xale yu jigéen yi lu jiitu ñuy dugg ci néegu sëy dafa am benn façon dundin woo xam ni day neex lool maanaam yu ci ëpp ñu di ko nekkee ak kañ doon bëggante waaye suñ xasee dem ba nekk ci néegu sëy beneen réalité day taxaw ndax sëy daf lay tënk te dafay am ay exigence dafay am yu muy bañ am yu muy nangu ci biir yi muy bañ ak yi muy nangu da ci am yoo xam ni ci biir ba ngeen di ànd ci lu jiitu ci néegu sëy xañ na ñenn ci góor ñi daan nañ ko toléré loolee nag soo xamee ni dugg nañ ci néegu sëy su bëggee way la ca ko góor ko daan muñ dootu ko ci fekk ndax yaa ngi ci biir néegu sëy loolee nag su xasee am parent yi dañ ci am rôle bu mag a mag a mag a boobu mooy ñoo xam ni kon ci cause boobu suñuy indiwaale solution yi dañuy indi cause yi indiwaale solution yi moo ñu xam ni ndaw bi nekk ci biir néegu sëy dafa dugg ci benn àdduna bu lëndëm bu wute ak bi mu nekkoon ndax lëndëm mooy lu la ëmp rek lépp lu ne sa kanam lu lëndëm kurus doo ci gis dara kon mooy lu la ëmp noonu lañ ko mën a tuddee li nga xam ne mooy li leer mooy li nga weesu lu la weesu lu ne leer naa la mais li sa kanam lépp lu la ëmp la ki ko xam mooy ki ko dund ba romb ko kooku mooy ki nga xam ne am na ci lu ko leer mooy parents yi kon foofu aussi parents yi dañ ci am benn vraiment lumière dañu war a jël seen tos di nit couple yu ndaw yi den bi ci njëkk xamal leen ni leen sëy du bànneex déedéet ñaareel bi ñu ñu xamal leen ni sëy gor la ñetteel bi moo ñu xamal leen ni sëy muñ la ñeenteel bi moo ñu xamal ni sëy muñalante la li tënk loolu lépp nag moo ñu xamal leen ni sëy jaamu yàlla la loolu nag soo xamee ni les deux parties moo xam ku góor ki la moo xam ku jigéen ki la su fekkee ni fasuñu ko ba mu dëgër ci bi ñuy dugg ci biir euh, néegu sëy bi lañ daan gis muy doon bànneex rek lañuy ñuy jàpp ni mooy wéy te loolu dafa am rupture su rupture bi amee fekk ñoom danoo jëloon seen benn appartement beru wala danoo jël seen kër teel a génn kon foofu aussi cause sociale la mooy couple yi nga xam dañuy teel beru génn dem seen këru bopp te fekk ñu amuñu woon benn taxawu boo xam ni mag ñi dañ leen ciy taxaw di leen gindi di leen tette di leen gindi leen tette ba ñu am maturité loolu su fekkee ne amu ci biir néegu sëy yi rupture de daal di am très rapidement parce que li ñuy wax fugg de la jeunesse muy euh, xadar gi faral di am ci ndaw ndaw day faral di am xadar xadar googu nag su fekkee ni sagesse lal ko muy xam-xam ak xereñteeg ràññee ci di jëfe sa xel bañ di jëfee sa xol su fekkee ne amu ci bu boobaa ñaari xol yi ak ñaari jëmm yi dañuy fantasiro dañuy teqaliko donc loolu aussi vraiment bokk na ci cause yi nga xam ni seetlu nañ ko ci biir néegu sëy yi muy bari loo xam ni dafay am donc suñ jugee si loolu ñu jëm ci cause économique loolu cause social la ndax cause sociale leen si dellu si waat waaye ñu duggaat tous ci cause économique ndax euh, ci suñu seetlu ci jàngat mooy jamonoy coronavirus bi mu amee jamonoy confinement bi bi mu amee Euh, bon gis nañ ko ba daanaka sax ñu bëri seetlu nañ ñi rey média yi sax wax nañ ko mooy couple yu bëri éclaté nañ jamonoy coronavirus bi nga xamee ne ñu ngi def confinement donc cause économique dafay am cause économique nag dafa am ay astuce ay ay ay jikko ak ay melokaan ak ay comportement yoo xam ni moom la ko góor ki ku jigéen ki yëpp war a amee pour ñu mën faa accompagner loolu ba léegi euh, boo nekk cause économique euh, mu nekk affaire bu ndaw bu ma euh, seetlu mhm. mooy comme maanaam ci wàllum koom léegi mhm. naan wàllum koom mhm. mooy comme wàllum joxe dépense wala yeneen kii yi nga xam ni da ngay gérer sa kër ba tax na am na jigéen yi xam ne tamit duñ muñ comme supposons fekkente ne seen borom kër yorul yorul koom bu nga xam mën na leen ko jox pour ñu souvenir seen besoin wala leneen ak leen wala tam comme ni nga ko waxee tamit euh, seetlu nañ que ni si coronavirus bi société yu bëri tëj nañ de telle que ñii ñu ngi doon xëy di liggéey di mën a seen besoin léegi nag ñu toog si kër ga comme ni nga ko waxee tamit loolu tamit euh, xam naa tax na ba divorce bon ñu bëri ñu bëri divorce nañ tamit waaw léegi voilà jërëjëf monsieur Barro effectivement noonu la demee muy euh, ku wax économique rek da wax koom-koom te ci suñu société jigéen dañ koy yor yërëm ko yiir ko yor bi koom-koom la yërëm bi xol la ak xel tegaw ci kaw yërmande ah yiir gi nag ba tey koom-koom la ndax la nga yiire jigéen la nga yiire eh, yërëmee jigéen ak la nga koy yore yor ga ak yiir gi ak sol gi wodd gi yépp ci biir yiir gi la bokk ba tey koom la mais suñu jëlee nag cadre yërëm loolu comportement la xol la ak xel suñu jëlee yor yiir yor ak yiir yor financement la yiir mooy sur protection jigéen dafa soxla protection il faut que moo am assurance moo xam ni moom mii kat je suis xelam dal nga yor ko mooy di ko dundal waaw léegi su fekkente ni si dañu nekk ci cadre social boo xam ni économique bi dafa am crise ah ñi ñàkk nañ seen liggéey ñi seen am am wàññiku na ñii li nga xamante ni si daan nañ ko am euh, amatuñ ko taxaw na loolu cause yooyu day daal di taxaw kon cause yooyu su taxawee itam euh, day daal di xaw a laalaat beneen aspect boo xam ne ba tey mën nañ ni day duggaat ci cause yi mooy aspe bi ñu doon wax sànq rek muy audiovisuel muy euh, jigéen ñenn ñi du ñëpp nag mais jigéen ñenn ñi li ñuy xool ci télé inconsciemment dañ koy dund ci société bi te duñ ci bàyyi xel li ñuy regarder di ko seetaan ci télé yi ci ay théâtre wala ci ay film wala ci ay téléfilm théâtral et est-ce que euh, loolu noonu euh, est-ce que lu manque de communication moo ko indi de telle sorte que parce que sànq ci biir waxtaan euh, sa sa biir wax am na am na lu ma jot a fort. mooy comme que wax nañ que euh, waajur yi waxtaan ñoo seen i doom euh, ku si ñoom ñëpp ñi ngi génn dem di wëri comme tamit couple yi tamit euh, ku si nekk boo ñëwee yaa sa portable ak télé yooyu léegi est-ce que du manipulation. waaw jërëjëf foofu laa bëggoon dugg sax sànq sax bi may leeral du sax ni damaa wax ni waajur yi waxtaan nañoo suñu seeni doom déedéet du loolu wante dama wax ni waxtaan bi waroon am ci diggante waajur yi ak couple yi. dafa des ndax dafa mel ni dafa am benn dog-dog bu am ci diggante communication bu waroon am ci couple yi ak seeni wayjur ndax way jur yi ñoo leen si jiitu waroon doon comme ni ma ko waxee tors yi war a nit sëyu ndaw yi kon su fekkee ni ndaw ñooñu demuñu jëli tors bi ci jur yi sëy ba du niitu te ab sëy su niituwul ci lëndëm ngay dal te lëndëm loo ca mbëkk rek musiba la lay jural xam ne loolu moo indi écrasement yi bari ci biir couple yi nes pa <laughs> donc foofu dangay ngay dellusiwaat kon ci cause économique effectivement muy wàll koom-koom beneen bi maa ngi ko bëggoon wax ci biir cause économique biir soulevé naa ko xam naa ci nga intervenir mooy impact bi audiovisuel bi di am ci couple bi loolu aussi beneen cause la ndax da nga gis ni soxna yu bari dañu yor téléphone sëriñ si di yor téléphone boo ko xoolee ci première. jàngat bi muy am ci biir loolu mooy tabaski da ngay jël téléphone nga xool juróom fukki nit wala téeméeri nit ñoo xam ne danga naan jug say tànk dem baalu ji leen àq jug dem say tànk nuyonte ak ñoom jug dem ci say tànk saafonte ak ñoom tap avec whatsapp dee ba dagg na jub j'écris un message la où je suis bind naa message fii ma toll bëf je pense pëf dem na ci junni nit ma ne ah voilà baalu naa leen ah ñoom ñu tontu ma donc téléphone bi jël na place su relation humaine téléphone bi effacé la chaleur humaine téléphone boobu effacé la e humaine effacé les relations humaines téléphone boobu aussi mooy effacé les relations humaine yi dox ci diggante couple yi wala bu ko effacé wul mu risqué wàññi ko parce que couple bi nga xam ni jëkkër dafay wàcc war a soxla soxnaam ci wet gi mu ngi ci téléphone bi di whatsapp di whatsapp wala di tiktok di tiktok donc dans ce cas ana reer bi eh, su koy na defaral ko defaral sa papa reer bi eh, defaral sëñ bi reer bi exemple donc foofu su amee muy contact bi ak jëkkër yi mi ngi tàmbali te am benn espacement donc TikTok bi jël na place yow nga jug déplacé wu toggal defal ko reer wala yow nga jug defal déplacé wu defal ko añ léegi à loolu su demee ba nga xam ni moom jëkkër ji mi ngi ko yëg te mënu koo muñ mën na indi mën na indi cassure mën na indi mën na indi mën na indi scandale donc lii aussi ci biir aspect économique bi dafa duggat parce que ci cadre économique la duggee muy leen nouvelles technologies de l'information de la communication ci cadre économique lañ duggee mais ñu duggee aussi il faut que ñu xam ni dañoo am benn part bu rëy bu ñu joué ci li tax couple yi di écrasé beneen aspect bi mooy yenn ci nit ñi du ñëpp mën nañ au moment où bi ñu yor téléphone ak seen borom kër pof mën nañ ko yor ak seen beneen xarit wala seen beneen relation wala seen beneen relation à longue relation boobu mën na endurer wu ba dëgër su dëgëree kooku mën na def si bu dee xale bi nekkul ku jigéen ku ñu préparé wala boppam dëgër loolu def si xelam loo xam ne mën na ko pousser à que sax mu écraser seen ngir gëm nit ki virtuel ki nga xam ni mi ngi koy promettre wala mi ngi koy gëm loo xam ne à travers le virtuel rek la ko xamee peut-être ba loolu yóbbu ko ci seen écrasé loolu aussi beneen aspect la boo xam ni mën nañ ni bokk na ci li nga xam ni wax dëgg fa yàlla ñu ngi. Euh, écraser les les les donc sëy yi nga xam ne ay ay ay ay ay ay ay nouveau marié lañ wala ñu nekk ay jeunes. donc beneen aspect bi muy nekk aspect religieux considération religion ci bépp religion nag laa wax moo ñu xam ni sëy dafa nekkul lu sacré aspect sacré bu sëy muy religion bi aspect boobu consideration bi ni ci waroon am. ñàkk gi jàpp bokk na ci li tas sëy yi mooy sëy jàmm yàlla la ci biir jàmm yàlla jooju ñàkk gi ñu ko ñàkk xam ni lii jàmm yàlla la aussi bokk na ci li nga xam ne day écraser sëy yi donc loolu aussi il faut que ñu xam ni euh, lu metti ci biir jàmm yàlla lañ ko xam quelle que soit la religion lan moo koy lay taay muñ muñ rek moo tax euh, vraiment nous avons vraiment un très grand une très personne di nooru Cheikh Amadou Bamba bi muy wax nii kun kaatiman lil durri wal buusa tanal xastan wa tax lul jile yaa mutahallim donc foofu mi ngi ciy jàngale ci ki war a sàkku waaye loolu dafa valable aussi ci kiy sëy muy dafa ni na nekk di nëbb say lor lu la ngay metti na nga koy nëbb yow ngay sëy surtout jigéen da ngay wannaasu di muñ xam ne neexul di am tey lu la naqari nga muñ ko bu gaaw yi nettali sa papa bul gaaw yi nettali sa yaay ngay muñ nee na soo ko defee dinga am li nga jublu ci sa sëy yàlla dina la ko barkeel ba pare di kawe sa génération actuellement ñi nga fi dégg ñu nekk ay kilifa yëpp seen yaay kenn xamu leen woon soxlawuñu télé soxlawuñu rajo soxlawuñu mees naturel soxlawuñu posé ongle soxlawuñu dara loolu seen borom kër daal na mbiram jàpp kon loolu jaamu yàlla la. il faut que kon ñu xam ni li tax jigéen sëy bi mën a ñëw mooy mu xool ni victoire sëyam mi ngi ci ay doomam c'est-à-dire doom yi ñooy définir réellement est-ce que soxna si sëy ba suñu borom gërëm na ko te it euh, soxna su ci góorgóorlu ba mel ni nga war a mel même bu sa jëkkër baaxul yàlla dina la gërëm parce que jëkkër yi aussi bu ñu abusé wu si loolu naan sama gërëm yow miy wax sama gërëm il faut nga am gërëm yow est ce yàlla gërëm na la d'abord donc loolu beneen aspect la boo xam ni c'est très fort ñu war ko tënk xam ko bañ a aussi jàpp ni jigéen bi dafa den doon benn animal rek wala dafa doon benn esclave rek boo xam ne da nga ñëw lu la neex nga teg ko ko lu neex nga wax ko ko lu neex nga def ko ko bu pare nga ko maay maa bu ma la gërëmul doo dem fenn yow yow doo yàlla di yow du ku la loolu aussi seet ce sont des exagérations góor gi nañu réglé te ñu xam ni jaamu yàlla leen leen jox ñoom seen bopp ñu war a jiitu ci jaamu yàlla ci di ko yërëm yiir ko yor ko te suturaal ko góor gi bu ko defee jigéen ji itam xam ni jaamu borom këram kase la ko suñu borom sax bu mu dem bu mu wax bu mu def bu mu yëngu ci lenn loo xam ne du nekkul ci ndigalu borom kër voilà léegi loolu moom mooy li nga xam ne mooy tax société bu mën a baax léegi nag la malheur est en est que souvent da ngay dégg ñoo xam ne dañuy wax naan ñawoon wane nañ ñawoon bu ñu wane ñi doon baax te di leen topp ba tey ñu ngi wëlbatiku di leen topp kon ñooñu dañuy wëlbatiku di raw ñi nga xam ne jéemuñ ci dara. donc voilà li nga xam ne moom lañu bëgg a tënk ci côté aspect religieux kon ci solution yi mooy nañu xam ni sëy jaamu yàlla lu ci mën a am tënk ko ci cadre jaamu yàlla di muñ te xam ne lépp suñu borom dana la ci jàppale su dee ni yaa ngi nekk ci li nga xam ne moom la suñu borom digle ci biir sëy bi kon loolu lañ amul lañ ci wax wasalaamaaleykum di leen jaajëfal mbokki internet bi ci seen émission whatsapp tey nag ñu doon wax ci cause euh, divorce yi xale yi ndaw ñi beneen yoon dinañ ko gën a yaatal ndax cause yi bari nañ trop trop mais loolu lañ ci mënoon indi comme luñ ci mën a barkeeloo prochaine fois dinañ ci gën a approfondir di leen jaajëfal ci seen émission whatsapp dans votre chaîne dans votre télé Teuf Connection wasalaamaaleykum wa la wa barakatu diamkan ya Asimi.